cousin mu ngi noonu ma koy nuyu di ko siyaar di ko wax ni macha allah sañ sañ de doom day ci loo nekk. sant yàlla bu baax baax maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk Wassare Lamb Wassare TV di wax nag damay anticiper àjjuma bi xam nga tey la jeudi moo tax may xëcc vendeur yi pour mu ñëw gannaaw vendeur bi ma fi nekk tey. ma mm-hmm. xëcc ko rek. fas yéene laal lii am fu ma dem bu mu jógee fii. <laughs> dégg ngeen Ousseyn léegi euh, bi du ñëw day fas yéene anticiper ajjuma bi euh, moo taxit ni mu def baax na def na caayam. def ah, demi saison bu baax macha allah macha allah moom kay fi mu toll nii euh, liñ laa tàkk nga ba yàqu yow moom tàkk nga ba yàqu fi mu toll nii di ko jaajëfal bu baax a baax encore une fois Ousseyn balaa ñoo dugg ci jàngat làmb ji. dafa am tiis boo xamante euh, dal na képp ku dëkk Jurbel wala képp ku bokk ci làmb Jurbel mm-hmm. muy ñi nga xamante ni dañ fa génn àdduna euh, ki ci njëkk muy euh, suñu suñu bu papa Bounama Fall mu génn àdduna moom moo njëkk génn àdduna moom moo yor lutte avec frappe bi foofu ci Diourbel euh, mu génn àdduna ñu koy ñaanal moom it euh, yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm te xare ko àjjana fële mu jëm yàlla na ko dàqal lool fii mu jóge suñu papa bu na ama Fall di ko jaale tamit Chérif at Xaana nga xamante ni kenn la ci wasaare làmb kenn la ci ñun gis nañ jàppale gi ñuy jàppale ñu koy jaale bu baax a baax a baax suñu papa bu na ama Fall moomu jaale waat euh, Etienne tamit nga xamante ne Etienne Ngom moom moo nekk foofu boole leen uuf ñoom ñëpp ñu koy jaale bu baax a baax suñu papa bu naa ma faal boobu Ouzin tey mu doon tiis boo xamante ne dal na ci monde bu làmb waaye dal na ci képp koo xamante ni euh, yaa ngi ci Jurbel di yëngu ci li nga xamante ni mooy làmb di ko jaale monde làmb bi ndax euh, koo xamante ni am na loo xamante ni nekkoon na ko ci Jurbel mooy nag muy seen njiit bés bu génne àdduna waa Diourbel ñoo ñàkk. Hmm. monde làmb moo ñàkk. Hmm. di ko jaale waa Diourbel yëpp di wax ne xamoon nañu ko am taxawaay la ci lutte avec frappe foofu ci Diourbel. Hmm. bu ko yàlla moomee nag yàlla moom li gën rek lay def. di ko ñaanal nag foofu mu jëm gënal ko fii nga xamante ni fi la jógee hmm. li ñu li li ñu ko desal rek mooy di ko sànnil ay ñaan di ko hmm. di wax tamit képp koo xamante ni bokk na ci làmb wala képp koo xamante ni bëgg nga sport hmm. rek nga nekk koo xamante ni da koy ñaanal bu baax a baax a baax a ñu koy jaal ñëpp di ko jaal di ko jaal waa Jurbel yëpp yëpp yëpp koy jaal bu baax a baax am na solo Ouzin ñu koy jaal waa Jurbel gépp am na ci keneen koo xamante ni moo yor moom it lit sans frappe muy suñu papa Dame Sylla moom it yàlla suñu borom ko démb démb lañ ko yëg euh, ñu ñu koy jaalewaat ñëpp rek képp koo xamante ni doomu Jurbel nga képp koo xamante ni doomu làmb nga képp koo xamante ni ci monde làmb nga bokk ñu ngi lay jaale suñu papa boobu daam si la di ko ñaanal moom it yàlla na ko yàlla suñu borom yërëm taxare ko àjjana fële mu jëm yàlla na ko dàqal loolu fii mu jógee yàlla na dee di naafulaayam ñu fa fekk ñëpp ak ñu ko fa fekk Ouzin tamit am na ci keneen koo xamante ne moo yoroon kii moo yor lutte euh, avec frappe bi kii moo yoroon lutte sans frappe bi euh, Dame si la mooy moom moo génn àdduna démb euh, ban ban ban ñaan nga koy defal. mooy li ma la waxoon rek. Mhm. waa Diourbel ba tey ñoo ñàkkaat. Mhm. ndax boo xoolee ki nga xamante ne mooy lutte avec frappe bi. Mhm. gaañu semaine bee passé ki yoon lutte avec simple bi lutte simple bi gaañu. démb waa Diourbel ñoo ñàkk di leen ko jaalaat bu baax a baax di leen ko jaal di leen wax tamit ñu ñaanal ko rek yaakaar loolu moo ëpp solo gannaaw yàlla moom di leen wax ne leen ko da leen koy jaalaat yëpp di ko jaalaat tamit moom mbokk làmb di ko di ko hmm. jaal ñëpp ñi nga xamante ni ci làmb lañ bokk surtout di ko jaal ay mbokkam tamit hmm. ñu koy jaal bu baax a baax hmm. kon waa wasaare làmb ñu ngi jël njaal mi di ko teg ci képp koo xamante ni doomu jurbel nga ku mel ni kàggu wala sëñ Bas wala Chérif at xaana ak ñëpp Etienne Ngom ñu koy teg seen loxo ngeen jotaleel ñu ko ci waa jurbel gépp gépp gépp gépp ñu ngi leen di jaale eh, di leen massawu di leen wax ni tiis bi ànd nañ ko ak yéen eh, tey nag ñu ñëw Ouzin fas yéene waxtaanee ci li nga xamante ni mooy saison bii nga xamante ni écurie Lansar lañ ciy waxtaanee. monsieur su ma la laajee écurie Lansar yan champion yoo fa nekk ñan nga may wax. Lansar dañoo nekk kii boo xamante ni ji bàyyi ji euh, dañoo dañoo am ay ay ay ay maanaam ay ndaanaan. yu mm-hmm. bëree bëri ndax su ma la limalee Tidiane Faye ñu koy wax le professeur de Lansar. Mm-hmm. su ma ñëwee ci Siteu ñu ne Tarkinda bi. Mm-hmm. su ma ñëwee ci nees ñu ne la Baleng de Lansar. su ma ñëwee ci Fëgg la. ah mooy noonu su ma ñëwee Super Étoile mm-hmm. ah mu amoon fa xale boo xamante ni ni muy euh, xale bu njaago bi. ni ko réel ni ko réel macha allah a mën a bëre. Super Étoile. Mm-hmm. ah ma ñëw ci Aline Diop. Mm-hmm. mu nekk ay xale yoo xamante ni maanaam dañoo bëri ay pakala. ah ay Maama ay euh, ki doon bëre Tafa Gueye. Abou bari na fa ay champion yoo xamante ni dañoo ñoom ñoom li ñu am seen écrit dafa raare. dafa ñu am nekk. maanaam ci VIP yi kaw rek lañ amagul. Mhm. te yaakaar nañ ko ci nees mais jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. Mhm. mais lan sax dañoo nekk équipe boo xamante ni foo génnee mbër boo demee ci ñoom am nga adversaire bu mu fa mën a bëreel. Mhm. ba ci ñu xool Siteu xale la boo xamante ni bi débuté yàggul waaye gis nañ ko jaloor yi mu def ak léegi. ba fi mu toll nii moo ngi waaj combat am te moo Papa Sow. Lansar daa bàyyi ji soo ko déggee écurie la boo xamante ni bu am tax bu am bu am bu am doole la ci ci làmb ba pare ñu am coach boo xamante ni tamit ah. équipe bu nekk ñaan nga yàlla am coach bu mel noonu. Hmm. mu père Aliou Diop. Hmm. ak ki nga xamante ni mooy père Maxime Bagard hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax suñu père la moom ku baax la amul benn problème. ñu ngi koy bu a mag lañ am ñoom. dëgg la léegi nag père Maxime Bagard ku baax la amul benn problème léegi kan moo am problème. <laughs> xam nga bu ma dugal. <laughs> <laughs> ñuy jaajëfalaat bu baax a baax a baax waa écurie bi nga xamante ne ñooy écurie Langsar ndeke Langsar du écurie mais université la wala école la boo xamante ni dañ fay tàggat xale yi parce que boo xoolee champion yi nga xamante ne yaakaaruñoo leen ci làmb yëpp Langsar da leen génnee def leen li ñu doon. Mm-hmm. monsieur maa ngi fàttaliku tàkkusaan bi nga xamante ni moom la champion bi fëgg la bëre woon ak kii di Ama Balde keroog bi mu dugg see ci làmb ngay xam ni làmb Langsar am na ci cër bu am solo. ci làmb boo fàttali ko tàkkusaan bi nga xamante ni moom la nees doon bërek Elton nga xam ne fu ñu dugg see ci làmb nga xam ne làmb Lansar am na ci cël bu am solo boo fàttali ko tàkkusaan bi Siteu doon bërek xam ne diggante Pikine la ak Lansar da xam ni Lansar am nañ cër ba tey ci làmb xale yoo xamante ni yaakaaroon nañ leen ci làmb ku ci mel ni ne réel nga xamante ni tàkkusaanam bi stade Diop Iba diggante digganteem saa Sa Thiès da ngay xam ni ba tey Lansar ñu ngi ñu ngi formé ay xale mais ñu ngi tàggat ay xale yoo xamante ne chaque saison bu jot am xale bu fël la ñu xam ne kii kat ci révélation kii. Euh, euh, super étoile dëgg la loolu ah, stade stade Diop bi ba maar la. billaay super étoile daan Garga Mbossé ñetti jël. ci benn tàkkusaan te boobu Garga Mbossé nga oos. am doole mën a bëre mais keroog super étoile da ko wan ni maa la ëpp doole euh, maa la gën a yàgg ci làmb euh, am na loo xamante ni euh, gis nañ ko fa keroog képp ku seetaan làmb Ouzin mu doon écrit boo xamante ni ay xale yàgg nañ fa mm-hmm. mais njàmbaar xoola boo xoolee ci ku mel ni Maama Lamine Ouzin xoola Maama Lamine diggante daawaati jéeg ak daaw ren mu doon révération boo xamante ne Lansar mu ngi fay def liggéey bu mucc ay moom Maama Lamine ma bëgg a wax tey ci palmarès écrit boobu yëpp ngay wax xam naa ne tey bu ko fëgal a déggee xol bi dina sedd ndax lépp lu mu am rek Lansar lay nooyee bu ko déggee tey xam naa ne dina dina gën a kontaan te ñun tamit ñi fi nekk di analyser ba tey bi ñu commencé ba léegi musuma dégg euh, fi mu toll nii palmarès bilan bu rafetee nii Langsar mu ngi def six komba dañ ciy kontaan ndax bu donte dañ leen a faral waaye boobaak léegi. Mhm. bi ñuy def bilan bi gisuñu bilan boo xamante ni defet yi mooy ëpp. Mhm. victoire yi waaye bi moom ah. bu ngeen tamit jege ngeen ko léegi mu doon écrit boo xamante ni ginnaaw feebar bi. Mhm. cinq mois yoo xamante ni ci la saison bi am Langsar bëri nañ ci six combats. mu ngi six combats yi xam nga ñaata victoire la Langsar am. cinq victoire la am ak benn défaite par rapport ak yeneen équipe yi nga xamante ne dama leen di tudd moo tax man leen. sàppo tàcc doo tàcc wàll sax moo tax man leen liggéey bi rafet na euh, ñuy jaajëfal bu baax a baax suñu papa père Max Mbargane ak mbër bépp mbër boo xamante ne yaa ngi écurie Lansar ndax ñun bu ñu sañoon. écrit boo nekk ci làmb rek ngay def ay performance yu baax a baax a baax ngay liggéey liggéey bu mucc ay jëm ci kaw ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di ko teg ci loxo ki nga xamante ne mooy nees teg ko ci loxoom mu jotale leen ko ci xale yëpp yëpp yëpp yëpp nga xamante ne ñu ngi Lansar di leen félicité bu baax a baax ci liggéey bu am solo boobu Ouzin kon Lansar dafa mel ni te te li ma ci gën a jaaxal mooy ñi ñu yaakaar ci làmb bëriwuñ ci ci saison bi gisuñu ci la gisuñu nees Maama Lamine bëriwu ci euh, Nekore la bëriwu ci Super Étoile bëriwu ci Tidiane fay bëriwu ci euh, Aline Diop bëriwu ci euh, nu mu tuddati Abu Ñaase bëriwu ci ba pare xale yi saison bi ni muy gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt wane nañ ci seen bopp mu wane mu mel ni kon xale yi nga xamante ne ñu ngi ci suuf jëm ci kaw ku ci mel ni mbay mbay fëga la Mbaye Fëgala la muy rakk Fëgala bi nga xamante ni moo bëri woon arène nationale moom it mu def lu lu lu rëy bokk na ci ñi nga xamante ne tey bu ñuy lim ci cinq victoires yi Lansar am ndamam bokk na ci tey lan ban yëg-yëg nga ci am. baa ji li ma koy waxee rek laa koy waxee. Mhm. gis nga Tikiri dañoo war di entraîner man dama gëm loolu man man mënuma d'accord. ciy mhm. liggéey chaque jour bu yeewoo def li ma def yëpp. Mhm. gàddu saagam dem liggéeyi. yow nga bàyyi sa lépp ne làmb mooy sa métier te doo entraîné man nangu ma loolu. Mhm. man su ma ñëwee ci làmb gis mbër simmeeku nekkul état sax damay mer. donte mhm. faralu ma ko loolu supporté wu ma ko. Mhm. sama xol du sedd ci moom parce que man leen laa gëm ñi nga xamante ni ay sportif la wala ñi nga xamante ni bëgg nañu xam altéro bu ñu demee liggéey bu wàcc sax dañuy gàddu seen i matériel dem entraîné ji. te gisee da nga naan ñi est lu ñuy def ay mbër la ñu war a nangam yow bàyyi sa lépp bàyyi lépp lépp lépp na làmb mooy sa métier te mënoo am état man nangu ma loolu waa Lansar bu ñu ñëwee ci stade bi bu ñu ñëwee làmb bu ñu simee ko nga xam ne ñii dañoo liggéey parce que ñi nga xamante ne ñoo lañ yoon nekku ñoo xamante ni dañ lay bàyyi nga def loo neex kii di père Maxime Gane mm-hmm. fu mu toll naan ba mu taxaw naan damaa liggéey damaa liggéey bu sumee ko nga xam ne dafa liggéey moo tax moo tax loolu laa bëggoon wax moom wax jooju waxam la mm-hmm. parce que danaan damaa liggéey damaa liggéey bëri wax la di wax rek mm-hmm. mais ku sumee ñu xam ne liggéey nga moo tax mbërë mi loolu bokk na ci lim leen di gën a ñaax moom per Maxime Gane gis nga xam nga booy booy booy booy gis doomu jàmbur naan ko dama nga liggéey yi wala da nga war a liggéey soo yore sa doom bu nekkee li nga wax dëgg la dafa war liggéey ba ku bu sumee ko que mm. doomam bi nga xamante ni moo ko su ko jur bi mu sumee ko stat kaw ñëpp dañoo bàyyi kenn mm. laajte kii ku ko jur déedéet mu bëri daan daw ñëw ci papa ji boo fekkee image boobu sa yaram dafay daw mm-hmm. ku mën a def loolu ci doomam yor ay doomu jàmm di ko ci def mm. kon ñoom palmarès bi dañ ko yee loolu ndax boo xoolee victoire écurie yi fi jaar bari na mais palmarès bi ñoom ñu am man boobu gisuguma ko mm-hmm. gisuguma ko te ay jàmbaar la ay xale lañ te ni nga ko waxee tamit seen ténor yu bëriwul. Hmm. xale yi dong ñoo fi andi lii. kon bu tanoon a bëri woon mu demee neneen hmm. kon li may wax liggéey dong moo wóor hmm. liggéey kese kese kese moo wóor ndax ku liggéey fayeeku de boo hmm. liggéey doo fayeeku de xëyal toog sa kaw xool ba xam boo bu la xëyu gi dalee xëy fu dee nga jooy ñu ngi ci jaajëfal yàlla yàlla musal ci xiiru ma faal bi musal ci mboole bi jullit am na fan yi moom bu ñu xëy di ko ci taaru bii <laughs> euh, ñu waxtaan ci ci dañuy dañuy yow waaye bàyyi sa giri yi yàlla xel dee parce que li sama xel di xalaat fi mu toll yi xiiru ba faal bi ay ree la ma def bokk yi tey Ousseynou ñu ñëwaat ba tey ci fëgg la mhm. mu ngi doon waajanteel ci saison bi waroon na cee bëre digganteem ak ki nga xamante ni mooy armée bu benn barak mhm. dalal naa leen ñaari yoon ci wasaare lamb dalal naa armée dalal naa fëgg la boole naa leen ñu jàkkaarloo ñoom ñaar mhm. mais ba tey euh, ngay xam ni Euh, làmb ji am na fu mu leen toll mais am na yëg bu ñu am ci làmb ji am na bëgg-bëgg bu ñu am ci làmb ji boo xoolee fëgg la ba fi mu toll nii ma nga États-Unis di waaj ci digganteem ki nga xamante ne mooy armée nee na ba muy dem armée taxu koo jóg mais dem na ba foofu combat bi taxaw mu ngi koy entraîné mais armée chaque jour que jëfee moom it ma ngay toj dinu Malika yi ma ngay toj dinu Tiwaawan Pël yi ma ngay ànd ak génération moom ak Alioune Mbaye Nder ak Boy Malika ak général Malika ak ki nga xamante ni mooy guy gi 95 di liggéey liggéey bu mucc ay ngir lan combat boobu nga xam ni dox na ci diggante moom Feugeula kon fi mu toll nii mbëru Langsar yi mën nañ ne daanaka euh, ñu ngi ci combat yoo xamante ni combat yu am solo la ci écurie Langsar ku ci mel ni euh, Siteu nga xamante ni ci avril bi la waroon bëre diggante mag Papa Sow mu doon combat boo xamante ni am na fu mu toll Langsar mais dër bi la diggante parcelle ak Langsar ndax Siteu euh, boo xoolee jàkkaarloo yi la mu doon wax Papa Sow yëpp mooy combat bi sifflet arbitre moo la fi bàyyi Papa di ko xamal ni yow xale nga boo xamante ni euh, su ma la jàppee nga xam ne lépp dëgg la mais mooy wan ni Lansar am nañ tàggat boo xamante ni tàggataat nañ ko xale bi di Siteu ba fi mu toll nii li ñu bëgg mooy gëm-gëm bi ñu am yëpp. mooy jéeg daan Papa mun a dem seeti leneen euh, mu doon loo xamante ni ñu leen ciy jaajëfal parce que ñu ngi ci tànk yooyu ñu ngi ci tànk di liggéey ñu ngi ci tànk di di wane seen bopp ñu ngi ci tànk di di gën a fësal seen bëgg ci làmb parcelle ci làmb la bokk waaye Lansar tamit kenn demul ñu des Ouzin. waa ji gis nga waa Lansar. dañoo nekk boo xamante ni nii boo amee ñoom combat. Hmm. combat bi day neex dañ koy jaay. Mhm. sama wax ji du ma bàyyi di ko wax. Mhm. kujje dafa baax ci làmb. Mhm. kujje dafa baax ci écurie. ndax boo xoolee kii di nees su lekkee avance signature am day neex. waa Lansar dañuy jóg jàppale ko. fëgg la waxi nopp. bu ma ñëwee Siteu loolu tuq bu bënn saañ bi réer. Siteu ku mu amal làmb waa Lansar yëpp a jóg ku dëkkul Lansar sax parce que loolu dafay dekki làmb nga am combat nga ñëw jaay làmb ji. fecc tous boo xoolee ma Papa Sow ñenn ñenn da ko dépassé mais dépassé wu ko. Hmm. lu doon jaay bés bi ci la Siteu di dox. Hmm. balaa ñu ko doon xam làmb ji jeex. mu ne Siteu mu ne Papa suma grand suma mag la dama koy yàgg bëgg dama koy supporter. Hmm. parce que ñu xam ne loolu day jaay làmb gis nañu ko ci Balla Gaye def na ko fi soo ñëwee ci Mama Lamine tamit noonu. Euh, xale bii di na ko réel la noonu lay def. waa lan sax dañoo ne équipe boo xamante ni bàyyi ji bi dañuy dañuy kujj ñoom seen biir donte dañoo ànd di bëggante ndax koo du génn fenn ci équipe bi la la diw mooy sama idole diw moo ma tax a bëri hmm. boo ko xoolee ci Siteu bi mu wax noonu nees moo ma andi ci làmb ndax géej la ma fekk may bëri mënuma ñëwal hmm. te boobu mooy nekk lu ndaw mu am yaakaar ci moom yéene ko ba tey lii am am kon dafa nekk ñoo xamante nii dama leen wax chapeau aw ma lenn lu mu leen wax doo leen dégg ci lenn hmm. entraîné a ñoo bëre daan képp kuñ ci ànd ku ci nekk da nga xool amoon na xale bu ñu wax Tigre moom tamit gën nañ ko gis daan raam ñibbi. billaay loolu la daan wax xale bu mën a bëri. mais chaque jour moo ngi entraîné bàyyil benn yoon. saa hmm. boobu da nga xam ne kii dafa bokk ci làmb. Hmm. waaye làmb moo demee noonu. promoteurs yi dañuy toog ay période boo xamante dañuy singale ay mbër ñii la ñuy bëgg di bëreel mhm. mais wàllan saa nekk na équipe boo xamante ni bàyyi ji bi man awma leen lu ma leen wax chaque jour bu ñu ñëwee da nga ne wàllan saa ñëw nañ mhm. bu ñu tuusee nag bu mhm. ay ndaanaan lañ ay jàmbaar lañ lu ma di kontaan ci ñoom baax baax faruma ko nag balaa gars yi yaakaar ne waaw mais fi mu loolu moo moo jar ci làmb rek parce que làmb tamit vraiment ñun ñuy toog fii di wax bëgguñu saa yu ñu tuddee écrit rek ne am ngeen dix combats ne am nañ huit défaites six victoires amaluñu njariñ bu ñu sañoon écrit yëpp dañuy góorgóorlu mais ñëpp mënuñoo jël première déedéet. parce que bu des fois ñiy jël première ñiy jël deuxième ñiy jël troisième ñiy jël ndaare ñuy jël avant ndaare li koy waral mooy yow mi jël ndaare du du du du du liggéey li tax nga jël ndaare mais des fois da ngay da ngay gën a góor góorgóorlu ci sa bopp parce que ki jël première chaque jour boo ko gisee dafa liggéey. parce que ci lépp loo gis rek amul kenn koo xamante ne sonnoo ci dajoo ci coono am ci li nga bëgg déedéet lépp loo bëgg avancé ci yëngu ci da nga ciy def li nga xamante ni jëmbat ci surtout fulla parce que suñu papa Youssou sundul ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax danaan Dakar sax boo koy jaay fow nga am fulla fulla boobu nag du fulla boo xamante ni da ngay fuññi wala jaay ko mais fulla ji mooy lépp looy def rek na nga ci jëmbat njàmbaar na nga ci jëmbat Euh, fayda mi ngi ci jëmbat jom mi ngi ci jëmbat fulla looloo waral mu naan fulla euh, Ouzin ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax xam naa ne li ñu amoon ci waxtu jot na lan ngay tàggatoo. Euh, di la sant di la gërëm ci dalal bi ma la laalaat tey. Hmm. man saa boo sama xol day ci ndax. bàyyil dalal dalalu ma la de. <laughs> dalalu ma ci wasaare làmb nga bokk yaa fi toog ñuy waxtaan ci làmb dalalu ma kenn bàyyi deux semaines depuis tey à part deux heures bi tey. ku ñëwati la ji li damaa dalal dalalu ba leen yow fii la ñuy liggéeyee fii lañuy bokk ñoom it dañuy toog fii man ma toog fii bu subaa Fatima toog fii ñu toog fii dalalu ma ci kenn ay ci bul ngaa wéyal. bu la neexee nga waxee ko noonu waaye ñoom ñi toog nii kàggu mii xam na li may wax. waaw kàggu xam na li may wax fi mu toll nii tey yaay sama patron damay nangu. <laughs> am na awul doon di leen jaajëfal bu baax a baax ndax euh, di wax ne Wassare Lamb hmm. euh, ñi nga xamante ni ñoo Sénégal Europe. ak ñi nga xamante ni dañuy dund làmb ñëpp. li ñu bëgg rek ci ñun ñoo lool ñun ci la ñuy bëgg di dox. Hmm. ndax ñoom làmb lu ñu bëgg. te ñun tamit làmb rek moo ñu intéresse làmb dong moo ñu ñor. Hmm. ba tax na ñoo ngi gis encouragé yi ñoo ngi gis ni ñu jàppalee ñoo ngi gis message ak appel yeeg lépp. ba tax na lépp li nga xamante ni bëgg ngeen ko ci làmb dañuy bëgg di leen ko andil muy lu bees di leen wax ne nag ngeen waaj ñoo ngi ah, waaj yeneen façon ak yeneen facette yoo xamante ni bés bu ñu yegsee ngeen xam ne yéen ñu fi tax a toog di jaajëfal bu baax a baax di wax na nag tey ah boo gisee nii ma def xam ne du àjjuma sax waaye dafa am sama benn sama cousine sama xarit sama rek boo xamante nii ah hmm. dañ koy takk tey hmm. moom sax laa bëggoon may bàyyi jiri gannaaw moom fi mu lonk fi mu lonk dafa bàyyi man a xaaral ma ne ma mbubu bi rek am kenn ku ma ko ku ma ko koy waaje takk di ko ñaanal yàlla na ko sëy bi jik hmm. ah yàlla boole leen jubóole leen ndax xale bu am yar la xale bu baax la waaw di ko ñaanal bu baax a baax moo xam li gën ci moom yàlla ko yàlla def bu fekkee sëy bi tamit yàlla tudd na mu gën yàlla ko yàlla def. Mm. te mu sax ci daal. moom daal laa am lu ma koy wax moom kii di Bouya mm. kon reménage à Bouya Gaye Ousseynou moo la ko wax ah, ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax mbokk yi ñu leen tàggu ci tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali ko sama nijaay Moussa Cissé. saag bi na ñëw dama soxla ak dàll eh, indi ko soxla naa ko may bu baax a baax Omzo bu Garga Mbossé gis naa message yi euh, gis naa yéene gi gis naa conseil maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois kenn du xaasum siise séeri jaara bàyyi faana ak Lamine borom Turki borom Istanbul jaajëf ba ëllëg incha allah ci beneen jàngat làmb jërë ngeen jëf